loi d'amnistie bi lee moo daal di jur jiixi jaaxa ci bopp ñu bari collectif bi ëmb ñi nga xamante ni nag ñoo ci yàqule maire ba futtu jàpp ni boobu boobule loi dafa am ñu bari ñu ma fàtte. li nga xam ne moom la ñuy déplorer mooy ñàkk ba eggal ñu ne doo ci wax ndax am na loi sàngam loi d'amnistie loolu moom ñun duñ ko nangu ay citoyen lañ yu daan liggéey ku ci nekk ak façon bi nga liggéey nga xëy li xew. amoo ci benn responsable pare nga ñàkk ci sa alal. ñi ngi ci amnistie ñu bari ci ñoom nag euh, daal di àgg ci nguur gi. ñu ci bari ci ñoom nekk ay gérant station service ay grande surface ay banque ak ñoom seen lenn rek lañu bëgg moo di njiitu yees yi daal di leen gëstu. ñun li bëgg mooy ñu fay ñu ko ndax danoo bokkoon ci réew mi euh, di jàppale état jàppale état mooy ñu jël suñu alal def ko ci transport bi. ku doon garab da nga doon tóortóor waa da nga doon mais lii xew nii di responsabilité ñaari régime yi la ku ci nekk am nga ci responsabilité mais régime bi nga xam ne ñoo jot ci nguur gi léegi sa nekkoon opposition ñoom ñoo war a indemniser heureusement wax nañ ko conseil des ministres donc lu officiel la. lan moo tax ba léegi état bi mënul jël jël mécanisme yi nga xam ne moo nekk fële parquet mu liggéeyee ko woo ñu. yàqu-yàqu yu am diggante manifestation diggante deux mille vingt et un ak deux mille vingt kenn mënu koo xayma ñu bari daal di ci ñàkk seen bakkan ay millions daal di ci yàqu. collectif bi ëmb ñi ci yàqule ca yooyu la événement ne dinañ def seen kéem kàttan ba yoon daal di ci àddu.